Euh, wax nag ci projet euh, SANSAS mi nga xam ni nag daal nay indi euh, district sanitaire yi nekk ci département bu Mbour nag matériel yu am solo jox ko nag lu toll ci fukki post de santé ak juróom matériel yooyu nag mun na ñoŋal bu baax a baax mu wérgu yaramu yaay ak doom suñu xayma nag boobu le matériel mu ngi toll ci ñeent fukki million ci suñu koppar ci noonu nag projet boobule taxaw tembe nag ngir jëlee fii bépp jafe-jafe boo xam ne askan wi ñu jànkonteel rawatina nag ci wàllum yaay euh, wér-gu-yaramu yaay ak euh, doom nekkoon na ci tam ci teewaayu kii di préfet bu Mbour ak premier adjoint au maire ak ñi nga xam ne tam ñoo ngank wàllum wér yaram bi euh, fii ci département bi dañ ci ciy teewlu kii di docteur Mama Moussa Diaw di directeur régional de la santé de Thiès mu ngi àddu ci micro Assane John. ñu fi ànd tey monsieur le préfet du département Mbour ànd aussi maire représentant maire Mbour. ànd ak partenaire bi ñuy wax euh, donc Sansas euh, Soltis ànd ak ay médecins chefs district ñi nga xam ñoo jiite biir wér-gu-yaram bi ci ci Mbour ak euh, Joal Fadiouth mais ànd ak aussi infirmiers yi ak sages-femmes yi ak aussi ay partenaires sociaux yu syndicats yi fi nekk. lu tax ñu ñëw fii tey ànd ak partenaire bi ci kanamu autorités yi réceptionné matériel bu mel nii c'est parce que bi mooy deuxième fois partenaire bi ñuy wax Sansas mu ñëw di ñu jàppale ci programme bu ñuy def intervention fii ci Mbour ci district sanitaire yi nekk ci Mbour yëpp. te ci biir 15 pour cent koy def leen bu njëkkee ñëw euh, euh, mën na ëpp na at ñu équiper poste yi ba ñu xool ne am na lu manqué léegi li manqué woon nag gab boobu moom lañ ñëw tey di mottali te boo xoolee baax dafa tombé euh, temps yi ñuy euh, manifester li nga xam ni mooy semaine bi ñu wax dañ ko jagleel yaay ak doom ci hmm. semaine bi yëpp ci semaine bi yëngu yëngu si baax a baax te dissanté Mbour ak yeneen dissanté yi nekk si département bu ràññeeku si baax a baax a baax lii nag aussi mu nekk occasion yoo xam ni dañ koy jël pour gën a mandargaal loolu ñu waneen tey loolu ñuy xeex te boo xoolee baax suñu programme de santé yi hmm. li ci gën a am solo ñu ci gën a xeex mooy tey fexe ba euh, jigéen yi xam dañuy loru si njur wala si ñàkk seen bakkan wala xale yi nga xam ne dañuy juddu tuuti yi ñàkk seen bakkan loolu ñu wàññi ko te loolu ñu ngi ci def ay jéego yu rëy mais yu mel nii nag mooy tax ñu mën ci euh, am am am doole baax gën ci am résultat yu bëri loolu tax tey nag ñu ñëw mandaté boo si booy dara pour population yi baax nañu xam ni partenaire bi def na fi lii kenn nëbbu ko kenn làq ko ñu wan leen lii la fi nekk résultat yi aussi baax nañu aussi ñu à chaque fois dinañ ko wane loolu tax tey euh, kilifa gi jiito ñu fi tey Euh, mu may ñu kàddu gi ñu mën a wax ak yéen pour wax leen réellement lii moo fi nekk tey ngeen gis ko yéen tamit ngeen mën ko wasaare ci seen contribution yéen te beneen te euh, ba ngeen ko defee ba léegi gis ngeen ci résultat yu baax ci li nga xam jot ngeen ko ci matériel waaw déjà euh, li ma la wax léegi-léegi mooy réew bi jëm mbirum si mbirum wér-gu-yaram Euh, boo xoolee baax dañ koy seetee surtout indicateur majeur bi nga xam ne moom lañu seet est-ce que euh, jigéen ñi ma la wax léegi nii ñàkk seen bakkan ci njur bi wala xale yi nga xam ne euh, dañuy tuuti ba am juróomi at ci ñàkk seen bakkan mais boo xoolee baax ñi nga xam ne amaguñu weer ñu ëpp la ci ñàkk seen bakkan loolu mooy indicateur bu gën a difficile bi nga xam ne dañ koy moo tax matériel bi nga gis yëpp ay matériel buy dem ci maternité la buy dem ci unité néonat la buy dem ci réanimation mais surtout pour qualité parce que xale yi aussi war ñoo may a judd mooy stérilisation bi nga gis bi yëpp indicateur yooyu nag temps yi passé woon nañ fi ñu bëre ñu ñëw si diwaanu Thiès ñu présenté leen plan national bi ñu def pour euh, nu ñuy euh, euh, fexe ba yaay ak doom lu ñuy ñàkk seen bakkan mu wàññeeku. muy kàddu yi docteur Mama Moussa Diaw di directeur régional de la santé de Thiès.